Thank you ah ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi <laughs> tey moom damaa am information gratuite damay revue de la presse alhamdulilahi rabbil alamin ma ne ko saru wi data part daal tey daal dëgg neexul borom ñaari jabar ñàkk jom weesu wut mu naan day doxaani te ay jabar ma ko yor daal ah, dëgg dëgg nag li wolof njaay wax dëgg la de hmm. ah boo dul tukki doo xam fu dëkk neexee de. Mm-hmm. ah ñu toog suñu puxus bee rek ne duñ génn. Mm, nooy def booy nga xamante ni ni duñ la bàyyi sax nga naan da ngay yuur mu mbedd bi. ah dëgg yàlla nag. marché baax na trop nag mais des fois nga dugg Lyon nag. da ciy baax de xam nga yow li ngay dudd nii. Ah. dafa neex. avec la Lyon moo daq moo dàq 14 milliards. ah gisoo ki koy def réew ma. gis naa ko daal <laughs> yow dara day jàmm. nii la leen di bàyyi. ah gëj naa gis nag gëj a rey. bu ñu fi sañ a jëlee nag. ah ma ne ah sama bos kañ lay <laughs> a neex. bëgg lu yomb nag taamu nga fu ma tëddee ñu euh, am fa bopp rek nga war faa mën a tëdd am fa tànk yoo tamit. xam nañ ne lii ma def nii tamit rafetul. dañ bedd ma ne lay tege ma à côté bu ngeen rek da ngay toog rek ah, nag ñuy ah, waxtaan waxtaan ñu may defal ngay waxtaan sa xol di neexaale nag. nag nit nag du fekkee naa dee. <laughs> Hmm. Ah. non yow doo patt. yow patt nii tamit tamit teguwul fenn dégg mu lay bégal naan la doo fàtte mën ngaa bañ a fàtte waaye pour nga am lu mel ni de xool ko gesu, gesu paa ah, gis nga <laughs> macha allah laf cat <laughs> eh. moom de bu xeesal ah ey xeesal kii du xeesal ëpp ëpp ëpp waaye ki nga xamante ne nag dëkkandoo ndeysaan jabar ji daa sëy ba dee muñ ba bëgg a gaañu nii daal nee si paaram moom ci paaram day doxaan nee na ay conteneur lay wàccee ndeysaan te lekk ba muy def nii sax ñun ñoo ko koy dimbali si kàttanu suñu borom waaye amul jom nag amul jom de amul jom amul amul amul kii amul rasu ñoom daal billaay ku leen jàpp jàpp ko bon de ku lay bàyyi bàyyi ko bon.

waa maa piis waa seedi ah namu naa la yaa def liggéey ci mbër fa laa ilaaha illallah damaa dee ba fee ah sa ngoon nal neex na waa nii rek nga def Mauritanie tamit dëgg neexul ah, yow eh jom lan la waaye yow aatuma réeroon daa seen biir ngéwél waaye ñaari aatu laa gis benn ngi ni benn ngi nii te nii na nee naa la ñii dañaa fekkee geeru tubaab yi ba tey ñu leen di wër gisaguñ leen. waaw ah, sa wax ëpp na lay ah, ci woon sax est ce que jàppoo leen. laa ilaaha illallah nu ne. allahumma salli ala sayyidina. waa jom lay sëgg lan la. waa déglul rek yow ma ñëw. Ah. développé. yow moom ngay mel ni faru jar. ancien combattant yi rek nga ma jox siggil. maman yaa la frustré sama gan yi nii. ah yow tamit kii sama mag la. mag jàmm. yow ko nga bëgg may nga ah sama bu ñaawul ni muy yow. xam nga ay damay bëgg bëgg dama ko nga ci loxo sa loxo ci loxo ak lahi laay doto ko defati. kuy jaay bande di fi fekk tangal mante feres de mom nga xamne ci lepp lay dem mangi doto len ko defati. mënumaa tok damay taxaw fimne ni kan dama wara am luma ma informa ji te nii gratuit la koy joxe ken du ci gañu ah pa da feebar bàyyi ko ki amut jom amut jom baaraamam yi melni bu kus kondro amul jom de jom de fi la ko bokk di wéy ak moom fi mu ko japp mo yir waaye da nga xam ni ki nga bokkul ngay ak baay. xoolal sigir rek ma di man nayo ki am na ñaar jabar. ah bon te jabar yi ñoo koy jox bii ñooy liggéey xale yi bureau la ñuy liggéey bu ñu ñëwee ñoo koy jox bii. kii mu ne ma tailleur bu mag la Sénégal. tailleur mosul ñaw. Ah kii moom amul jot. ndox moom lekk bu bu bëri jigu ko ndax dafa infecté woon biir bi. ak sama ndogu bu rëy bi moom. boo ko joxee moom suppu kanja ak daa bu koy boole biir bi di infecté baaxul ci moom. Ah amul jom de yow moom ñëpp a war a doxaan ba des yow. wa man de ñii waxuñu ma lii man de ci na man. may ma rek ma jàkkaarloog ñom gis nga ki ñepp wara war bam dess ba xam nga kula kula kula euh, kula ñewu du la yeeram waye man dama ko ñewu mako dama ko yeeram neegam so fa duggé yalla ak man ay mama, dara la amu dara waye yow amo jom yow yow mom ku ñàkk jom nga nekkate bopam bu taaju bi melni loy ki de waxuma ne am jabar bay am ñaar nak xool kii moom dima saf gën leen matt kii moom nee na ma amul gel bu siiw laay dootoo ko defati kuy jaay wëyoog bande kooba ji njeer di nga fi fekk tàngal mante ferees de moom nga xam ne ci lépp lay dem maa ngi dootoo leen ko defati ci àddina revue de la presse de laay def nii. kii moom amul jomu àddina ndax ñàkk jom weesuwul yow par sa loi sax danga koy dugalante ay 500 lay dugal wala ay 250. ñàkk nga jom amoo personnalité sa bopp. lii dama koy sinap nii bu ko defee. maman lay def nii tamit maman. taxawal rek man preuve dama koy bëgg preuve bu doy laay bëgg. man sama gàcceeg fan laa koy waxee. tegal sa loxo tegal sa loxo chérie ñaax bëgg naa lii de garaatu bi la rek. pour yéen nii. maman yow nii lañ doo lippeewu leen de waaye macha allah chéri ndogo bi neex na li ma jox tey lii laa gën a bëgg sama àddina. maman yow doo toog xaar ndog. man information nii laa koy joxe surtout bu bees tàkk. maman kay toogal xaar sama ndogo bi rëy na tey de. couleur Saint-Valentin la de. da ngeen di bëggante. waaw man leen seen xol jëlal xam dama kaa bëgg sama xol. jëlal yow noir moom rouge la ñaari rouge nga am kii noir maa ngi yegg ca kër ga tey. déglu yow koo fi invité kii yow xam kii lan la. yow kii noo leen bokk. man de yàq ko daa man. yow kii xam nga fu ñu xamante man ak moom. ah fu ngeen mënti xamante loo ko fi invité. loo fi invité waaw sama xarit la bu ma ko man fi mu toll nii xoolal man su ma doon courant dama naan sama dizaine heures sotti na. xanaa yow da ngaa ragal say xanaa kii mu wax dëgg la tamit. waaw mu demee na lay fii sama bañ. man lan lay wax ñoom. ma ñu seen bagage dem man ma jël samay bagaan ñëw toog. loolu loolu kaa bi. loolu kay kaa la. man mot naa aaw mot ñaar mot ñetteel. maa loolu neex na la. non man doom yaay. lay leen la laaw tey nga xam ne doom neex na ndayam sama ndogu bii.

amit dafa miir laa barki sëriñ saaliw ki ken du mom mom dafa neex de dafa dak subal tabax neena man lay anké sama wax sama xarit bi nan ko ki la la bëggon may mo luppe ko luppe ni fayal laaw baye fi sa jabar ji amoo loo lekk nga ut ñaarel waye na la wax sobe yalla ah neena la docteur tey de na faj ñaari nit de jabaram yi ak ñoo am fulla dañoo am fulla am fayda am personnalité waa tamit kuy gis pom di dem ci new mosuma koo gis si àddina wax mu naan gel bi ree ma gel bi naan <laughs> ree bi rek ma koy def jàmm rek Tour Fall merci de ta part toi aussi merci de ta part euh, euh, puissance euh, du bileen photo rafet bari pël la jéer moom de wóolu naa ko moom moom moom moom ku ma xam lu di sax awa saw xale yi de ay ay ndaanaan la ah du bileen bàyyi yëndu bi ay góor ngeen de waroon ngeen diw seen tànk yi nag boo leen amul crédit ngeen mi comme que tocc bi ngeen xam dipp dipp ji de tey ni mbaa jëm gerte docteur laa gunge woon quoi dañ ko éviter woon donc ma gunge ko. si. eh yow du sa néeg yow. non su ma néeg la sax mais. du sa néeg kay ndax bu nekkoo sa néeg dooy dugg du yott wala dangaa def njombe yow jom damaa bëgg xam yow jom yow jom lan xool ci kaw ba suuf war maa mën a yab. yow ma la de. yow jom yaa ma war a xool naan dangay doxaan. yow eh. jom dangaa lekk jom dangaa naan yow yére ma jox la dàll ma jox la luwaas bi sax sama yaay koy fay nga ne yaay yoo yaay dangaa doxaani woon. ba pare et puis yow ana xaas bi nga jëlee woon port. xaalis moom bàmba laa ko lebal xaalis docteur. ah docteur daal daa yëpp ay jéegam ngay xap-xapal noonu yaw man jeeg bu mel ni man yow lan nga gis si beneen jéeg te gisoo ko si man. yow man xam nga ni moom moo gisee xam nga man du ma doxaan kat. doo doxaan kay yow daal nekk yow yaay yow daal yaay làmbisoo bay làmbisoo sa raq mama message yëpp fii la ma fekk sama biir téléphone bi xoolal dama bañ xam nga laa bëgg day màtt du màtt damaa bëgg nga toog noonu pompel ma ale waaye yow tamit nag nañ waxante dëgg jëkkër ji yorul amul jom amul fulla amul fayda amul sax ngor gi mu xamante ne xool ko rek xool koog sëgg bi ak doq bi ñuule da la may nurool ñuule affaire boobu noonu xewoon fi syndicat dafay jaay ñuule tey rek mu dee yow yaboo ma jógal. eh ma ne nga jóg nga pompe gaawal. ñi bi di ñi ñi nekk ci biti ñu ngi lay dégg. te nga demoon ñu fekk la fa eh jógal pompe bu ma yeb bëgguma wax ci. gënoon na métti nii tey wax gënoon na métti nga suturaal ma nga jóg jógal. tey rek mu dee cof ko bu ko laal sax cof ko ca digg ba nag. suturaal ma la pompe gaawal. yow eh ma ne tey ngaa jógal moom mu jël samay bagage nañ dem sama jógal comperte bu muy moom gaawal yow da xam ne koy doxaane waaye du yow ma ne un deux trois ko nga naan da ngay si moom bu ñëwee bu mu jeex boo téyewul nooy def ee eh, téyel wàccal un ee eh, jógal baal ma la jógal wàccaatal ni nga doxaaneeti bu baaxoon dem da nga ànd teg te dem ni gawa ya nga mel ne ñet ñetti fan yow lu wax sama yaay ko fay lek ak naan ma la ko def ma ne nga tëdd. bal na tëdd. deggal bamba deggal bamba ak ñaari jabar yi waaye yéen matt leen ko bu yow. da nga xiif. muy dem ko na. da nga mar lo manke manke wa dara. ki gatte go ga cuub ñay palmaanu ko yor sa ñaari jeeg macha allah yor sa ñaari tukulor aare racine buur gede nga ne yee da ngay genn ci mbedd mi di taxawaale di doxaan. wa lool amul man jom moron yob yóbbu suukaru koor ma diko gum gunge. revue de presse bi fekk nañu fi. mën ngaa tooy sa yaram wala mënoo ko yaw wa xana mom mako ko. mom yaw fi yow. mo to fi kenn lool la bëgg nga xam ko dama bëgg nga réglé rek. dama bëgg nga melni mbot ci bir ndox yamal do yam kan moo la manqué yow ñu ngi lay toppatoo di la jox ngay lekk ba suur di la jox ngay naan ba màndi taluñu dara lu ñu liggéey indi ko ci kër gi ngay wër di doxaan jarul ngay jàpp bopp naka ma xool sa bopp bi xam ne bopp ku ñàkk keesa nga am waaye man maa ko def nag man ñu xool ñëpp bàyyi ñëpp dugg ci yow naan dama lay say ba li ngay wax tey say baaraam yow amoo wax tey tey ñun ñoo war wax ndax yow doo rus amoo gàcc amoo rasu mën ngaa jël sa ngor yo di ko teg ci palaat di dox ak moom fii ci marché di ko wanteer saam juróom yaa ma bett joroo nga may xool xaw ma kan waaye man man sow pour la bàyyam xale bi safi bàjjanam ndax mu doo papa xajaa boo fiy toog man toog ma fi kii damay génn abal ko këram. ngay wax. damay demee ëpp na.

alhamdulilah rabbil alamin bu ma dajee woon ak Bombardier de daan ko. sa néeg kañ la doon sa néeg yow dama ne nga génn laa wax. ay néeg bi maa moom ñoo ko moom mais du yéen ñaar. mel ne xale bi yarlu waat nii yow da nga ne da ngaa wóor nii mën ngaa korite de. sa yére bu dellu. béykat ba waxoon boo sàccee ba.